Eh, bokk ñuy seetaan ñu leen di nuyu bu baax tey nag ñu ñëw fii Flores mbir mu metti mu day waar amati fi laa wax sax te daa yàgg na fi am kër goo xam ni lu toll ci euh, huit chambre defe naa mi ngi fi waaw waaw kër spécial ci kaw ak ci suuf li mu doomu Sénégal yu bari dëkk fi ah police bi nag dañ fi ñëw tey jii ci fajar ku baax nga dikkal ñu ci naka la leen police ak ak bi ñëwee mu ngeen def ak ñoom. asalaamaaleykum wa yëf yi moom ñoo ko gisandoo ñun daal defuñu lu dul toog ba ay cinq heures cinq heures demi du matin yaa ngi dégg gaa yi ñëw gaa yi ñëw gaa kër gi xam nga dugg ci ci néeg yi yor seeni i fetal yor seen lépp ñëw allumé ñu xam nga góorgóor ñu ñu ñu def ay yaramu neen ak lépp ñu góorgóor ñu boole ñu ci benn benn néeg tëj ñu fa surveille ñu dugg ci yeneen néeg yi lépp loo xamante ne bii bagage la wala lépp loo xamante ne bii ñun ñoo ko moom muy xaalis muy lépp ñoom ñu jël ko yóbbu bàyyi lu ñu fi dara. laajul may ñu ñu wax. ñoom daal dañoo ñëw boole ñu dugal ci néeg def li leen neex te damaa yaakaar ne nit au moins su fekkee dañ la yabal wala ñu jox la ñu jox la euh, notification pour nga ñëw ñëw boo mayee au moins war ngaa mën a aviser ñu fi fekk. laaj leen motif bi pour lan la li ko tax a jóg ak li waral ñoom dugg ci kër gi yooyu yëpp leeraluñu ko mais bi ñu ñëwee daal dañoo dugg ci kër gi ñëw saccagé lépp man xam naa ne li ci ëpp li ñu doon wër xaalis moo leen gënaloon parce que lii kuy wër bagage doo ñëw di yàq di yàq di yàq nii bagage jàmbur yaa ngi dégg di ñëw di yëkkati ay lal yëkkati lépp ñun jaayuñ dorog sàccun feeñuñ dañu daan suñ doole mais lépp lu ñuy def wala lépp ñoom lu ñu bëgg a def nañ ko teg ci ay normes boo ñëwee man bu ñuy jël suñ bagage nañ ko jël ci yoon mais waru ñoo ñëw fekk fii ci kër gi xam nga góorgóor ñu dugal ñu ci néeg jël suñuy bagage gis nga suñ suñ pochette yi suñ li pochette yi nga xam ne sax léeg-léeg ci la def weccet yu ndaw yi gisoo mhm. fii lañ koy mais gis nga xala mhm. lii lañ ci bàyyi sama lii kalpe bi sama kalpe bi xoola nii lañ ko sax sama kalpe bi 10 yi lañ ci bàyyi mhm. te xam nga ku xëy suba ñu yee la 6 du matin xamuñ loo fanaanoo ñu ñëw jël sa xaalis yóbbu est-ce que xam nga li ma la wax ñu ñëw jël ko yóbbu fii lépp lépp loo xamante ne bii xaalis la réal réal euro dollar lépp lu fi nekkoon dañ ko jël yóbbu waxantuma la nag peso peso yi bi bijouterie yi mag yi lépp loo xam ne clientèle la wala lu man di doon dañ koy jël bàyyi fi bàyyi fi am na bijouterie yoo xam ne ay 20 peso lañ fa bàyyi ay 5 peso loolu dafa metti waaw mais bu fekkonte ne bii ñoom dañoo ñëw jël bagage li ñuy jaay buñ ko yóbbu woon amul problème bàyyee ñu suñu xaalis mais dañoo ñëw boole li ñuy jaay boole suñu xaalis boole lépp yóbbu ba pare xam nga dañ ñoo maltraité parce que yenn yi koo doo ko ko def ba pare joxuñ ñu notification joxuñ ñu motif joxuñ ñu dara. biñ paree bind ñu daal li ñu fi jëlee. biñ ba pare xam nga lu ñu bind. Mhm. dañoo jox ay ak identification bi nga xam ne ay acte lañ ay benn feuille la ñu jox papier yi ma nga fa. pour ah, xam nga ne acte la da dañoo war a wuy ju immigration mhm. le 17 ñoom bi ñu ñëw dañu ànd ñoom kese police bi la wala ñoom ñan lañu àndal bi ñu ñëw bi ñuy ñëw police ñëw na am na ñeneen ñoo xamante ne bi ñu ngi sol ay tenue yoo xamante ne bi dañ cee def euh, police euh, immigration waaw am na police immigration am na beneen boo xamante ne bii police de de la suite de de investigation boobu tamit ñëwoon na am na munici beneen beneen municipal tamit ñëwoon na mais am na ci moom daal mi ngi ko yéeme na kenn mënu la ko expliquer li ci xew lépp kenn mënu ko moom neexut a expliquer parce que moom yëf yi dangay ñëw tiimal tiimal tiim ak sa bët wala nga gis gisal sa bopp doo ko xam ne lii mooy lii. bu ñu doon xayma valeur bagage yi jàpp nga ni ñaata bu fekkee mën nañ ko xayma. fii moom liñ fi liñ fi jël ci bagage bàyyiwuñ fi dara boog luñ jaay liñ daan jaay ak yëpp ak xaalis ak yëpp bàyyi fi yére yi ñuy sol sax am na ci yére yoo xam ne dañ koo tànn yóbbu dàll yu bees yi ñu jëndoon dañ koo tànn yóbbu parfum yi dañ koo tànn yóbbu est-ce xam nga li ma wax yére yu baax ñuy sol sax ñun dañ koo tànni yóbbu yére yu baax yi ñuy sol yëpp xoolal décodeur bi décodeur décodeur télé bi dañ koo yóbbu fii lañ ko doon teg décodeur télé bi dañ ko sàcc yóbbu ko nga xam ne dañ ci abonné woon internet di ci seetaan seeni Sénégal affaire yooyu mais dañ koo jël yóbbu. mais léegi après nu ngeen def ndax euh, jokkoo ngeen ak may ñu may ñu ñu woo ay avocat ñun daal may dara lépp loo xam ne suñ droit la dañu koo xañ ah, ma ne ko lépp loo xam ne suñ droit la dañu ko dañu koo xañ yaa ngi dégg lépp loo xam ne suñu droit la tañ moom ko ñun dañu ñu koo xañ après nag ngeen i kilifa ah waaw ah, ñoo ngi leen di woo di lancer message képp koo xamante ne bii da nga nekk ci réew mi wala nga représenté fi dara di sénégalais te nga man ci dara moom yenn yi yenn yi sax dafa am loo xam ne seen i sax bu fekkee neexuñu leen seen réew amul problème na nañoo boole ñun ñëpp góorgóorlu nañu kaay la ñibbi ñu ñibbi moo gën parce que réew mënoo dem ci réew di fa immigré ba pare mënoo yenn kii mënoo fa am jàmm te am na yenn pré prérogative yoo xamante ne bi waroon nañu koo may muy sunuy droit dara sempre sempre voilà sempre sempre bu buñ génnee ci mbedd yi wala ñuy jaay même buñ jëlee sa bagage yow doo wax même buñ la sàccee yow doo wax ñoom daal lu leen neex la ñuy ñëw def ñu buñ paree dem seen yoon soo waxee ñu ne la noo passa nada tranquilo ñaari baat yi la ñuy toppee non duñ la aver duñ la duñ la avertise duñ la def dara dañu ñoom daal ñoom daal dañuy ñëw ak lu leen neex te te bu fekkoon sax ñoom xam nga ki la war a àttee ki la war a defendre su la dee sàcc yow nooy def loolu ma man question boobu laay laaj quoi ki nga xamante ne bii moom moo la war a protéger war laa mën a di la défendre di la sàcc yow nooy def boo ñëwee buñ dee jaay marque jëlal marque yi amul problème boo ñëwee bu li bagage yi ñu jaay yóbbul amul problème mais xaalis bi nga xam ne ñun ñoo ko moom liggéey ko ñàq ko xam nga wuruñ koo jël di ko yóbbu ba nga xam ne suñ suñ bijouterie yi ñu yoree sax pochette yi ñu yoree ma ne un pesa bàyyi luñ ñu ko ci dañuy ñëw jël lépp si yóbbu mais nit booy jël ay bagage am wala ngay def leen war nga koo do jox benn sax benn notification jox ko këyit wala nga jox ko dara ni ko lii ak lii lañ sakaar ci moom mais jox yooyu yëpp dara amu ci waaw noonu noonu nii nii daal nii laa la ñu yeewoo nii la ñu def mais nag waaye lépp dañ koy jël rek delluwaat ci suñu borom sant sant di sant yàlla bu baax ndax mënoon naa gën a metti te it mënoon nañu kër gi mënoon naa daanu suñ ko wala leneen dal ñu waaye nag dañuy sant yàlla bu baax a baax a baax moom mi nga xam ne moom moom mooy teg jaamam lu ko neex waaw ñoo ñaan moom moom mu mu mu lii mu may ñu xol buñ ko muñee teggil ñu ko wutal ñu leneen lu gën lii waaw comme que ñu fiy ñëw ñun ñi ñëpp amul kenn koo xamante ne bii dugg nga ci dëkk bi indaale fi ñaar dërëm yàlla dimbali na noonu ba ku ci nekk yaa ngi dimbali sa njaboot yaa ngi yaa yaa ngi asu yaa ngi asudaar sa familia xam nga li ma la wax say nécessité yi la war yëpp yaa ngi koy def yaa ngi may dégg alhamdulilah léegi daal dañuy sant suñu borom di santaat yàlla bu wér di julli ci yonent bi te xam ne mboolem mi fi nekk te nga xam ne ñoom ñoo yilif association yi ak président yi nga xamante ni bi ñoo nekk ci daayira bi ñi nga xamante ne bi ay njiit lañ ci dëkk bi te jiite Sénégal yi fi nekk war nañ cee def li ñu war a def taxaw ak suñuy matuwaay ba nga xamante ni bi problème bu man di am it war na ñoo mën a am ñoo xam ne war nañu fee taxawal parce que ñëw jël fooy xamoo nit ki jàng na xamoo jàngul nga jox ko ne ko signeel te motif bi muy signé xamul lan la tamit dafa metti nga bëgg koo forcer ne ko signeel dafa metti parce que kër gi ñun dañoo luye te fi ne mbooloo fu mu nekk fu ne dana am koo xamante ne bii mooy moo mooy yor responsabilité paa bi dañu paa bi ñu luye kër gi dañoo luye kër gi mais am nañ koo xamante ni moo nekk ci kër gi moom moo document am ci lañ def turu kër gi ci lañ def lépp mais lu man di am moom bu ñëwee ne ko da ngay firmaal te moom xamul li muy firmé day li muy firmaal day metti dana leen xaar leen sama avocat ñoom mais ñoom nanguwuñoo xaar seen ñoom ñoo ko firmaalal seen bopp te duñ la jox kayit nga liir te duñ la jox ne la lii motif pour lan ba léegi xamuñ motif bi pour lan la. parce que leen koy laaj ñu bañ. boo la laajee kenn du la nangoo wax. boo waxee ñu ne la puusal ne. xamal leen ne kayit bi. waaw kayit bi ñu waaw kayit yi ci yi ci bari ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko ñoo ko firmaar léegi nag ku ci nekk jël nañ sa sa numéro documento identifié nañ ko mais nag. léegi li ci des mooy ñi nga xamante ne bii ñoo ñoo ñoo fi nekk nekk suñuy njiit yore association ñi yore associa association religieuse ñi yore nga xamante ne bii associa association waaw administrative bi ñoo ngi leen di lancer appel parce que nag liy jot jot na ñoo moom seen réew waaye ñu nit ay doomi aadama lañ sañ nañoo immigré parce que Argentine bu dul woon immigration du toll fii mu toll yaa ngi dégg ñun ñun war buñ même buñ fi amul ay droit nañ ñu wax ñu ne yam leen fii ñu yam fii wala def leen ñu def lii jaayuñ dorog sàccun fenul kër gi bu mboolem bu buñ fi du du du kër gi rek de mbooleem sénégal boo xam ne sakaar nañ fi ay bagage am wala ñu jël fi ay bagage gisoo ci kenn koo xam ne ñëw nañ fekk fa lu ñuy dorog wala leneen yeneen yoo xamante ne bii dafa dafa dafa nekk yoo xam ne déli la marque yi nag ñoom ñoo ñu koy jaay ñoom ñoom sax dañ leen ciy jaay dañuy ñëw ñu leen koy jaay ñoom ñuy jënd di ci jëndal di ci jëndal seen i jabar di ci jëndal seen i doom dañu leen koy jaay ñoom policiers yeeg ñoom ñëpp dañ jaay kon nag am na ci loo xamante ne bi ñoom bu ñuy ñëw di ko defit war nañ ñoo war nañ ñoo jox ay motifs yu leer a leer a leer ñoo ngi ñaan ñëpp njàpp ñu si wasalaam jërëjëf Cheikh mu mel ni yow yaa ngi tudd léegi sa xaalis buñ la buñ buñ la jëlal toll na ci ñaat ak it mbir mi nan nga ko dunde waa xaalis bi de moom bari na bariwul de waa lu ci ëpp daal jëluñu ko mais li nga xam moom lañu jëlee sama sac be te ma koy liggéey trente deux mille pesos la. sa bagage loolu moom mais bagaas yi kosaa loolu moo leen fi indi moom la ñu war a jël. waaw kosaa yi may non yi sama yére la mais lépp lañ doon foyatu bu deen kosaa dong la moo leen tax yaa ngi fii nii fii lay tege kosaa yaa ngi fii ar xubale mais nag affaire bi laa rax ak sàcc parce que yemuñu ci kosaa yi may liggéeyee sama déggu doon télé bii sax dañ ko sàcc. sàcc laa ko mën a tudde daal ngeen baal ma ci kàddu yi nag yéen ñi nga xam ne yéen may seetaan ak samay bagage yu sew yu sew pochette yeeg yëpp lañ tijj xaalis bu fi nee rek jël nañ ko pochette yaa ngi nii so même sans sa nañ ko waaw identifié nañ ko mhm. njaboot laa fi nekkal nga dëggoon ak sa soxna waaw mhm. sëñ Saliou mu ndaw moom it jël waaw jël moom koy bàyyiwuñ fi dara. yéen ay ko kon xam ci kaw. ci kaw waaw. mbokk ko dégg yéen a seetaan waa sëñ waa. liñ fi jël ci bagage rek bagage liñ ci jël rek war naa mat bagage bagage yi suñu ki mu bokk nii mat bismillaahi rahmaani rahiim. waccal kalaami raasidan wa mursida wa fikratina wa xalbi arsida. asalaamaaleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatuh. yéen waa Touba Argentine seen mbokkum taalibe ñaan ko Mor Ndao Gueye mooy nuyoo te siyaar bu baax di siyaare bu baax gaa yi nga xam ne ñoom laa fekk ci daara ji ñu suñu mbokki taalibe di suñu am di jàmm ñi nga xam ne dañoo bokk Serigne Touba pare bokk liggéeyub Serigne Touba bi te yàlla dogal ne ñu xam ci ñoom ak pësteef lépp loo xam ne jëm ci kër Serigne Touba gi maanaam yàlla dogal ne ñu xàmmee leen ci maanaam ba xam ne na kenn mënu leen ci. yàlla dogal na tey jii ñu yem ci espace maanaam policiers yi ak ñun ñëpp ñu ñëw sàkkaar ci seen i seen i seen i bagage ak seen xaalis ba tax na ñun ñu teew ci di ko naqar lool te ku ne xam ne man moom kenn mësumaa gis ma ne ci mais yàlla xam na ne Sëñ Tuubaa xam na ne liñ leen jëlee rek bu leen ko waxoon rek maanaam kenn mën leen ko kenn mën leen ko wax ndax ay góor yàllaa fi nekk ay ay liggéeykat ñoo fi nekk te luñ liggéey bu ñu wootee ci kër Sëñ Tuubaa kenn du leen ci man kon ñu ngi dagaan képp koo xam ne yaa ngi ci maanaam SS équipe ci kuréel association bi ak képp koo xam mën nga cee jàpp rek maa ak daayira yi ñu ngi di jox loxo ngir jëmmi sëñ Tuubaa ndax ay mbokki yoo xam ne wallaahi asim sëñ Tuubaa dañuy seere dañuy wax te it sëñ Tuubaa rek dañuy kanam ku wala kaanu mu ron yaa ngi dégg lii ñuy wax dafa nekk ndax ndax dañ leen xam xam gi nag mënut a wax dañoo dëkk ak ñoom te bu liggéey sëñ Tuubaa dañ leen gis bu baax te bu ñuy laaj addiya sëñ Tuubaa te dañ koy joxe kon ki nga xam ne bu ñu ko laajee ci àddiya sëñ Tuubaa ji lu mu am def ci yoonu sëñ koo xam ne sëñ Tuubaa tànn ngay liggéey war nga leen a gëstu nga gëstu bi mooy nga nga dimbal leen seen xalaat ak sa doole ak sa ak sa dañoo dikk buñ jël fi bagage jël fi xaalis pare jël bàyyi leen ne yàlla dogal na ne ci mën a leen sax mëntu bari kon képp koo xam ne am nga xam-xam boobu nga mën cee jàpp ngir jëmmi sëñ Tuubaa rek nga jàpp ci ngir jëmmi sëñ Tuubaa maa ngi jégalu baax sëñ góor ci kàddu yi jërë ngeen xam naa dañuy dem xool xool kaw gi mi ngi noonu daal affaire bu la wax dëgg yàlla bu doy waar ay nii wax dëgg yàlla metti na trop lu toll woon ci vide nekk mi ngi fi xeet euh, bu ci nekk toll ci ñaari nit ñu ngi ci daan dëkkee ñu jël fi ay bagage yu bari ci lim nag am na kenn koo xam ni mu ko waxee trente deux mille peso maanaam xayma bi ci bi ko dee xayma ci xaalis Sénégal deux millions la am na ko wax ni li ñu yoroon ci bagage mat na cent cinquante mille peso loolu xam naa bu ñu ko dee xayma mat na six millions bu sénégalais nekk bu nekk mu nekk loo xam ne lu métti la gis nga fii yëpp dañ ko dañ ko dañ ko dajji waaw suñu grand nga baal ñu rek nga dellu si waat ci mbir mi ak it uh, ni nga ko dundee. waaw mbir mi ko dundee moom métti na topp tamit uh, ñaaw na loolu dañuy xëy 6 heures matin ñoom ñu fëgg police daj buñ kër gi ba dugg si biir kër gi jël ñun ñëpp kenn ku nekk sa sëmmoogoo sax man mi ba may yow sëmmoo ma. dañ mooy génn ñëpp dugg leen si benn néeg tëj ñu fa dugg suñu néeg yi jël suñu bagage fi nekk suñuy man samay jël suñu xaalis jël suñu bagage fi nekk yëpp même ay dàll yi ma jëloon sax pour pour man la yóbbu nañ ko même bàyyi ma dama bokkoon nekk tamit jël nañ xaalisam tamit jël nañ lépp waaw moom ñaanoo topp ba si kanam yàlla wante dañ lay sant yàlla xam yàlla moo ko joxoon bu soobee yàlla yàlla dinañ ko joxaat waaw loolu daal moo demee. Mhm. yéen a ko yéen a ko dégg baat bi benn la Baye Modou di bokk taalibe yaakaar naa kii di sëñ Mor dafa wax loo xam ne lu am solo la ci mbokk taalibe yi ci seere ji mu ci def ci nu ñu daan dundee ci daayira yi ak it lépp loo xam dañ ko ci yëkkati yaakaar naa it man ci sama kàddoo en tant que euh, sénégalais boo xam ni wax dëgg yàlla ñii li ñu dund man dund naa ko kon yaakaar naa fi solution war na mën a am daayira yi ñu ngi fi naka la ñuy xalaatee. Euh, jàpp ci li nga xam ni tey moom moo xew ci suñu mbokk Sénégal yi métti na trop di leen wax nañu sax ñu war a fay location yaakaar naa fi ak ñaari fan defe naa noonu ngeen ko waxee te xam naa fi ne kër gi xaalis néew fi bagage néew fi xam rek yow yaa ngi ñëw bu fekkee dëkkoo fii gis nga li fi xew ni méttee. waaw salaamaaleykum suñu ñu ngi lay bu baax tey jégalu si yi rek man la mbir mi métti na métti na wax dëgg fa yàlla ñu ngi koy métti waaye loolu moo neex suñu borom. maanaam fii dara dara dara ci bagage moom des fi moom bu dee dëgg rek yàlla bëgg jël nañ seen xaalis jël seen bagage xanaa dëkk naqarloo rek comme ni ko suñu borom diglee waaye di sant yàlla tamit mel na maanaam day lu gën day lu gën mais di la ñaanal mu yóbbu seen ay rek ci bàkki suñu saal yi lépp lu waaye man rek jàppale rek ñu def ko ci te yàlla suñu borom rek tax parce que moom di day nawaar di fii rek bari na fi teel senegal defe naa su ma juumee dugg naa si ñeenti kër yoo xam ne. nii lu mel ni nan lañ def dem nañ ba si kër ñoom Samba fa laa jógee léegi policier ñoom dàq waaye am na benn boy bu ñu fa fekk xaw ma Samba na tudd xaw ma mais moom dem na dañoo fekk ci moom ay passeport ba ba léegi nag fa ñu nga fa boo fa mën a yegg nag dana baax ñoom ñoo nga fa. gërëm ko baax kon yéen ko dégg information bi mi ngi euh, du fekk du nekk nag fii la am na yeneen ñeenti kër yoo xam ni nii lañu ko def gis nga bagage yi waaw gis ngeen ko nii. yëpp la ñuy yàq tasaare kër yi la wax di yàlla gis ngeen ko yéen ko bokk seetaan ndaa nag fi ne nu fàttali nit ne lii du fi lu fi bees ah, xam naa nekkul nag lu bees yàgg nay am surtout moment yi ñu toll ci weer yi ah, du ñàkk ni toog waxtaan dina am ci diggante ñoom ak kilifa yi defee it ñu xool euh, ñun ba nekkin lañ fi war a gën a mën a nekkee bu baax xanaa du ñàkk it ñi nga xam ñoo njiit yi daañu def négocier yi wax dëgg yàlla lii métti na métti na métti na xam naa kon dañuy yamale uh-huh. mm-hmm. voilà fii ba tey beneen néeg la gis ngeen. ñun bi lañ dëkk. fi nekkoon jël nañ ko. Mm-hmm. daal li ñu jëndoon sax di ko sol dañ kaa jël. affaire bu doy waar ah. waaw bi mm-hmm. jël xaalis bi maanaam mm-hmm. mm-hmm. ñu xool dépôt bi. ñu xool kii mbokk jox li mbokk taalibe bi wax moom. xam naa nag li ñu amoon ci temps dafa mel ni soreetu mu jeex ñu xool dépôt bi. ok. bépp aussi doon ba daanaka bagage sedd nga xam daal doo mhm. xamante ne boo ko jaayee bu sedd bu tàngoor bi ñëwee da nga koy jël aj ko fii daanaka sax bu ñëwee dañ ko yóbbaale. fii daal boo bëggee dégg-dégg si gàttal suñ ni ko mën a tënkee maam bàyyi nañu fi dara waaw mais suñ classe yi rafet doxal ma maam mbokk taalibe la moom ci kër gi la nekk. asalaamaaleykum maa ngi nuyu képp ko fi nekk rek ñoo leen nuyu di siyaar bu baax a baax dañoo xëy na am naqar naqar boo xam ne xamul luñ koy xamul xamul daal xamul daal nuñ ko nuñ ko mën a waxee barke Cheikhul Khadim lii dafa ñaaw dafa ñaaw ba àgg ba àgg foo ko takkee romb na ko tey nekk ci kër doon ab sénégalais ñu xëy ñëw sa kër police ànd ak immigration immigration bi nga xam ne ñun ñun ñun moo ñu fi nekk sax moom la ma ànd muy seetaan lii nii ñu koy def dafa ñaaw ñaana ba àgg ci kanamu yàlla xam ne nga ñëw ci kër di contrôler jëli bagage d'accord nañ ko waaye ñëw jëli jëli xaalis jëli dàll yu ñuy sol jëli ay yëri ñuy sol bàyyi woo dara compté woo bindoo bindoo bàyyi woo fi benn kéet ci ay policiers ramasse lépp dem sa yoon ñaana ba ak kanam yàlla maa ngi maa ngi koy sa message nag bàyyiwuma kenn waa waa waa waa association bi ñoom Arfan ñoom Babacar ñoom Tafa lii nii jar naa xoolaat ndax sa jour moom boo amee boo amee fay mujj moo dañ koy bàyyi mu sedd ñu continué waat nekk ci beneen cas buñ toogee tuuti duggaat ci beneen kër. war nañ cee taxaw nag ñaana ba kanam ñaana nag ba ñaaw ba ba ba ba ba ba ba ñaaw yem. boo xaymaa li ñu jël ci bagage yi. bëri na barki Cheikh Khadim bëri na néeg bi ne li fi mën na cent cinquante mille peso ay xaalis ay yére daal la ñuy sol ci suuf waaw maa ngi jégalu baax na kàddu yi.